dooraat ñu dooraat. le parrain des détourneurs de deniers publics dans ce pays. moom moo war a daw ñun grenade warul tax ñu daw. prison warul tax ñu daw. garda bi warul tax ñu daw. saxaar yi warul tax ñu daw. donc yéen journalistes yi bàyyi leen di daw bu ngeen déggee tell ñun sénégalais yi nañu bàyyi di daw bu ñu déggee tell nañu fàttaliku ne yaayu 14 sénégalais qui sont morts en mars 2021 bëri na fi tey Sénégal ñoo xam ne bu ñu amee xëy ak gontu ginnaaw yàlla. ce sont ces quatorze victimes là donc nañu bàyyi di daw président Macky Sall du fi am un troisième mandat illégal et illégitime du fi nekk bu yóbboo bii mu jël ko lii du dara lii du dara non c'est important que le monde entier sache ce qui se passe ici je n'ai aucune honte qu'on me voit blessé même si le prix à payer c'est qu'on voit mon caleçon C'est inacceptable qu'un député sénégalais soit traité comme ça, tout simplement parce qu'on voulait voir le président Ousmane Sonko. Et aucun policier mënuñu won kayitu juge buy wane ne dañoo placé en résidence surveillée Ousmane Sonko donc sa résidence surveillée de fait objective c'est illégal c'est illégitime du ñu nangu kuy sacrifier président Ousmane Sonko du ñu nangu keneen koo xam ne d'accord du ñu nangu keneen koo xam ne dañ koy liquider. empêcher des candidats c'est des purs droits gis ngeen c'est des c'était kii en tout portant noonu la ñuy daal di tiire ki nga xamante ne mooy Cité Keur Gorgui je rappelle que le député Guy Marius Sagna est blessé le député Guy Marius Sagna est blessé waaye du ñu nangu di un troisième sénégalais bu ñuy tere mu nekk candidat à l'élection présidentielle ça c'est inacceptable c'est des grenades à bout portant ça c'est mais il y a déjà des manifestations ils provoquent les troubles à l'ordre public d'accord ñu ngi ñaawlu boku fu ñaaw lu yem li nga xam ne moom la ñu teg président Ousmane Sonko ndax rek moom moo nar a nekk le cinquième président de la République du Sénégal